من الأمراض وكب من أنكر بالبلاد بران الباقي من الأمراض وكب من أنكر بالبلاد azubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp di baaluwaat ak ñëpp tey baal ñëpp ak di jiital ci néew bi ak ziar bi xal général kullu murit Cheikh Mountakha Mbacké Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey ji nag mooy ba fukki fan ak benn ci weeru août atum 2021 di bis boo xam ne nag mën nañ wax ne taarix dana ko bind ci yoonu murit ndax nag li ci xew mën nañ jàpp ne bii mooy yoon bu njëkk muy am ci yoonu murit xalif général kullu murit Cheikh Mountakha Mbacké Bachir moo woote bisub xasida bis boo xam nañ ko jagleel jàng xasida kese fépp ci dëkk bu sell bi di Touba murit di bawoo fenn fu nekk ci àdduna wërngal këpp ñëw di fekke si lu ni mel ci biir liggéey bu ni mel nag sëriñ bi boole ko ak ay bernde fépp ci dëkk bu sell bi di Touba ci bernde yooyu nag fii ci Touba Daaru Marnaan fi jàkkaarloo ak kër sëriñ euh, Xaadim Mbacké conférencier am waañ woo xam ne am na fi mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekkee ci gox bi nekkee ci daaru Marnaan daje ñëw ci siège bi nga xam ne mooy siège u daayira Miftahul Muna ànd ak ñoom bés bu ni mel lool nag di waañ woo xam ne dañ koy taxawee di fi taxaw nag lépp lu jëm ci wàllum bernde xam naa da ngeen ko gis ci biir image yi moo xam lu jëm ci ay togg lu ñuy naan ak lépp loo xam ne doomu aadama daf koy jëfandikoo waajal nañ ko fi fas yéene ko yóbbul sëriñ bi fa nga xam ne fa la santaane mu jëm fa waañu nag ginnaaw bañ ko taxawalee sëriñ bi sàkku ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom nañ dendal ñi ñu taxawal ko ci koñ bi suñ ko defaree ba pare yóbbu ko ci kër Serigne Fallou man koo dënalee séddale ko ci murid yi nga xam ne ñoo nekk foofu tey taxaw ci xasida Serigne Touba yi te Serigne Mountakha Mbacké woo leen ñu bawoo fenn fu ne ci réew mi ñëw fekkee bés bu ni mel ngir nag euh, ñu gën a leeral mbir moomu noonu ñu ngi taxaw ak ñaari jëwrin yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ñu ngi ak suñu ndeyjoor jëwrin Sadex Sey suñu càmmooñ jëwrin Basirou Ndiaye ñoom ñaar ñi nga xam ne liggéey bi ci seen loxo la jaar ba tàbbi ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi teew tey ji daayira association mbootaayu jigéen ñi kenn desut ñëw nañ ñu taxawee waañ wi xam naa dañuy jébbal kàddu gi sëñ Sadex Sey moom dana leeral liggéey bi fa mu tàmbalee ba fa mu yem suñu paree kàddu cant ak ngërëm yi nga xam ne moo jëm ci mbooloo mi jëm ci sëriñ bi nga xam ne moo ñu defal tawfeex ji danañ ko bàyyee suñu jëriñ Bassirou Ndiaye su noppa ñu tëj kàddu yi kon ñu maasee teewlu sëriñ Sadex bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi ziarewaat bu baax di nuyu di jéggalu di ziant bu baax Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mi nga xamee ni tey moo waral liggéey bii nii liggéey bu réy bii nii liggéey bi nag comme ni ko jëwriñ ci waxee rek bi mu tàbbee suñu loxo mboolem daayira yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Daaru Manaan ak mbootaay ak association yi ñëpp ñu ngi ci biir liggéey bi ci leen tàbbi boobaak léegi nag wax dëgg yàlla bu ñu ko déggee ba léegi nii maanaam noppaluwun benn yoon su guddi ak suba ak ngoon lépp ñu ngi ci di di xool nu liggéey bi jagee suñu borom nag dimbali nañu baax ak Sëñ Tuubaa ba am ci ay tawféex am ci lu kawe sunu njortu ndax yaakaar ñun maam bi ñu koy jox maanaam maanaam danoo xam ni murit moom ndigal rek ndigal rek lay lay jëfe moo tax noon noonu noonu noonu noonu lañ ko jëlee kon dañuy santaat bu baax a baax baax a mbooleem daayira yi nga xam ne nii ñoom lañ àndal ci liggéey bii yëpp kenn ku nekk saw ñaq dem ci ak sa doole ak say jëf sa lépp dem ci ñu ngi lay sant bu baax a baax baax ndax lii yombul ndax ñu dañ daan nekk di liggéeyal Serigne Touba waaye tey Serigne Touba moom moo ñu liggéeyloo kon loolu yombul moo tax boo fi ñëwee tey dangay gis ni maanaam ànd nan ci lépp ci lépp ci yar ak ci teggin nga xam ne ni démb ci guddi lan démb ci ngoon lan commencé liggéey bi ah di nekk ci xoolim soble meeg lépp ci fajar gi 4 heures de matin fekk nañ ñu taal ba fii may wax yow ni suur nan nga xam ne añi moom ni ko sëriñ bi bëggee noonu lay amee balaa 11h bu soobee sëriñ Touba dina dem foofu noonu nga xam ne nii mooy kër sëñ Fallou nga am foofu lañ ko bëgg a séddalee bu fekkee yi ñu koy séddalee suñu borom dimbali nañu ba lépp lépp lépp matal le nañ ko ndax yaakaar naa ñu ngi fekk lu tolloog 350 bool yoo xam ne ni moom lañ ko bëgg a séddalee paani rax seet yëpp mën na jëw lépp lépp lu xam ne nii rek teraanga la ànd na ci muy furi muy boisson muy ndox muy kafe muy meew lépp ànd na ci loolu nag li ñu ko may mooy ndimbalu Serigne Touba kon ñi ngi sant mboolem ñi nga xam ne nii ñoo bokkoon ci liggéey bi nga xam ne nii waa Darou Manane gépp la waa Darou Manane gépp la ñi ngi sant Euh, danoo nekk ci waañ yi nekk ci jëwriñ moo tax mm, dañuy bàyyi suñu ba Basirou Ndiaye moom mu àggale yéene ji ak wax jeeg yëpp ñu ngi sant ñëpp di jéggalu di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp. bisimilah barka borom Touba yi ñu ngi leen di nuyu di leen bu baax di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di sant yàlla bu baax di julli yonent si sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool doolu ko wér. sëñ Cheikh Jëmu Fall ak mboolem jur ak mboolem taalib yëpp barke borom Touba ah, tey tey suñu jotaay bi jotaay tawféex rek la muy woote bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha wat na ko muy bisub xasida yi mu doon bis boo xamante ni fii ci Cheikh Daayira Miftahul Muna ndigal dafay mel na wàcc ñaari yoon ndax woote xasida yi ak ndigal mi waañu nga xam ne mi jëm ci wàllu bernde yi sëriñ bi dénk nañu ko war ko taxawee waru koo jébal ganam ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci biir euh, bisub xasida yi mu doon nag am na am na am na am na tawféex bu baax a baax a baax a baax a baax ndax sëriñ bi li muy li muy njëkk a santaane rek muy bennoo gi booloo gi boo ñëwee tey fii si bërëb bi muy waañ wi da ko fi gis bu baax a baax a baax mboolem mbokki taali bi fi nekk yëpp moo xam ay daayira la moo xam ay association la moo xam mbootaay la moo xam lu mu mën a doon même sax ay nit ñoo xam ni sax kenn xamu leen ñu ngi ñëw ànd ak tey ñu ñu ngi ñëw ànd ak ñun ñii si biir liggéey bi ngir rek ndigal li nga xamante ni tey am nañ ko fi muy waañ wi lépp mën a taw feexe mu doon loo xam ne nag sant dong lañ ci mën a def sant sant ci sëriñ bi ah, sant ci mbokk taalibe bi biir liggéey bi yëpp lépp lépp ndax amul dara lu des ba léegi fi ñu toll xéewal yaa ngi wàcc ngir rek ñu sëriñ bi li mu bëgg ci ñun ñu mën koo am mooy waañu nga xam ne jëm na ci berne yi maanaam lépp mën a taw feexe macha allah ñu ngi ci sant ñëpp kon beneen ndigal li mu jëm ci wàllu euh, bisu xasida yi am na espace boo xam ne gis nga ko ñu ngi koy dundal fee bu baax a baax donc daara yi nekk fii ci koñ bi yëpp moo xam sëriñ daara yi ñëpp jàngkatu xasida yi rajas zikar kuréel yi ñoom ñëpp ñu ngi fee ci baas ba di dundal tamit xasida yi mu doon liggéey boo xam ne nii fii daal lépp mat na macha allah ni ko sëriñ bi santaane ah fii daal ñu ngi koy taxawee ni nga xamante ni kat noonu la waree kon nag duñ def leen loolu di sant ñëpp képp koo xam ne nii ah, sa sa sa addi teew na fi sa xalaat sa doole sa jëf ñëpp ñu ngi leen mas di leen sant di ñaan ci sëriñ Touba. lii sëriñ bi namu te moom xam ko ba tax mu woote ko yàlla nañ daje ak moom barke Cheikhul Khadim sant nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn wuñ kenn bàyyiwuñ kenn xol seet na lool sant nañ ñëpp taxawaay bi organisation bi lépp macha allah gaa yëpp daal ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi leen di sant ndax wax wax dëgg yàlla lépp lu ñu bëggoon ci bis daal def nañ ko matal nañ ko matal nañ ko mën sëkk kon nag dañu ñaan rek yàlla defal ñu jàmm di ànd ak wér tawfiix barke Cheikhul Khadim di sant nag jëwriñ Sadex bu baax macha allah murid taxawaay bi macha allah am na solo di sant tamit jëwriñ ñi dàkkas bi liggéey bi yëpp xam naa bu ñu limee bu ñu limee mën nañoo waaye xam nañ ñëpp xam nañ ñëpp jëwriñ Youssou ñoom jëwriñ Daawuda jëwriñ Ousmane ñoom ñëpp bu ñu limee damay juum soxna Jaara Ba ñoom ñëpp yaa Abi Faye yaa Xadi Wàdd ñooñu ñëpp bu ñu limee rek dañuy juum ñoom jëwriñ Alaaji bëri na bëri na bëri na bëri na kon dañuy sant ñëpp daal di taxawul fii rek di ñaan yàlla yàlla nañ daje ak tawfeexu sëriñ bi rek barke Seexul Xadim di ñaan la Seex Muhammadu Muntaxa yàlla na fi yàggul na fi yàggul lool te ànd wa barakaatu. mbokk yi kon kàddu yi mi ngoog ni ko déggee ci jëwriñ yi sa deex sëy moom mi nga xam ne liggéey bi li ci ëpp solo ci loxoom la jaar ba egsi fi tàbbi ci jëwriñ Bassirou Ndiaye ñu ànd ko ak mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi lum néew néew juróom-ñett mbaa juróom-ñeenti daayira ñu ngi fi euh, bokkul ak association yi nga xam ne ñoo teew ak mbootaayu soxna yi moom yeneen membre yoo xam ne dañu ñoo teew si ñoo xam ne liggéeyal sëriñ bi rek moo leen ñor xëy na bokkuñ ci benn daayar waaye bañ déggee liggéeyal sëriñ bi ñëw bokk si seen addiya ak lépp lu man doon ñëw na kon cant gi ak ngërëm gi sa jëwriñ yëkkati sànq ni dañu koy delloowaat ci ñoom waaye sant na léegi jëwriñ Sadeex noonu lañuy sant mboolem jëwriñu daayira yi ndax mënuñu lim népp wax naa ko sànq juróom-ñetti daayira waaye santaat ki nga xam ne mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke ndax nag tawfeex ju toll nii mën nañu wax ne mi ngi doog a ci gox bu ni mel euh, sëriñ Touba liggéey loolu ñi nga xam ne ñoo fi nekk loolu ñu ngi ciy soog a ndax yàgg nañ jóg di liggéeyal sëriñ bi di ko fekki fu mu nekk lépp luñ mën di ko def waaye sëriñ bi xool ñu ba liggéeyloo ñu tawfeex jooju ñu ngi soog a jot kon ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi tey ñaan bis bi lépp loo xam ne sunu borom euh, dogal na ñu jàng ko fi ci alxuraan ak xasida sëriñ bi lépp lu mu ci yéene lépp lu ci bëgg moo ko xam yal na ko yàlla def barke Cheikhul Khadim xam naa kon ni ko waxee noonu lay demee ci ay feeg ay waxtu yu néew euh, añi dana noppi ñu jël ko yóbbu ko ci kër sëriñ Fallou séddale ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi war a jox ànd ko ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk fii ci siège daayira Miftahoul Mouna kon rek ci kanam tuut lay doon ñoo ànd ak yéen wuti foofu ci jumaa ji ñu santaat ñëpp gërëmaat ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah